What up guys? What up guys? What's up everybody? Summer guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> yeah, they call my Pap J, Ibrahim Ndao, Mustafa Mane, Dagoud from Belgium. They call my Jim from Wakam. They call my guy Big Malachon TV. Yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup. On est dans le diable. Mais ça, gars, comme je l'avais dit, c'est mon poste du téléphone. Bon, je vais parler du, du système. Hein? tey système bi laay ya, wax parce que eh, sama wasila sama mentor ki ma yakar ni ne moy mooy changer Sénégal tu vois kii ñëw le taizen de la politique sénégalaise ki rénové politique sénégalaise muy Sonko dafa yago tok di wax système mais sax bu waxé système rek gaay da wuñu comprendre système mais xam li proverbe bi wax naan le temps est le meilleur juge tu vois anglais bi naan time will tell olof na yag bawul dara parce que am na foo xam tay tey làkk àdduna yëpp làkku àdduna yëpp ñoo ñofa ñoo fa quoi olof sax néna trimuté bayal mu gis té ñi fune ni nak Sonko mi ñu waxon ñi ngi koy gis donc le système bi ko doon wax te saa bu ko waxee tey jii am ay gars xam ne ils n'ont rien compris bu ñu jógee naan non moom système bee ko formé lii di leen non système bi formé ko moom ENAM la génne admi ba foofu nag bu ñu lay formé formé wu ñu la nooy sàccee foofu formé wu ñu la noo xam ne tey jii maanaam tey jii yow da ngay sàcc boo génnee da nekk un délinquant fiscal wala affaire yooyu noonu boobu dañ ko formé tey d' argent di ko jël gars yi di fay impôt muy boobu dugal ko si si keesu état bi ba état bi tey ji amee ay mbas yu mel ni coronavirus du fi nekk naan mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñàkk fayda di majal euh, population bi donc moom système bi formé wu ko moom dafa génn Saint-Ville école de très bonne renommée formé ko mu génn léegi boo génnee nag tu fais face au système bi Sonko doon wax mooy manam système mu caïman bi système manam tayji bu fekkon euh, bu fekkon tayji système da ngay def ben ben examen wala ben concours ñu la jox ñu un synonyme du système nel mafia le système c'est une mafia ay nit ñu dajaloo la seen film école ñu xol intérêt Sénégal mais ñom seen intérêt bop lañ lañ fay nekkal tu vois loolu mo ne ci police bi loolu mo ne ci douane bi loolu mo ne ci politique bi loolu moo nekk fépp mais si tu fais pas partie du système nak yow ta vie elle est en jeu yow doto progresser doto am promotion yow yow soy wax dof lañ lay jàppee yow sa ndey du liggéey parce que tey jii mu koy mën a expliquer mooy da nekk ci boîte supposons nga nekk douanier sama mbokk douanier dañoo baal am nay douanier yu intègre am nay policiers yu intègre nga génn nga ne man du ma lekk lu moom moomul douanier la beneen douanier bi moom saa bu nekkee port bu génnee 14 euh, oto ñu may ko 4 oto su bàyyee ay buletu euh, cocaïne jàll ñu may ko 1 milliard muy jënd ay ay terrain fu ne di tabax fu ne may oto le douanier bi nga xam ne tey ji moom il est bien moom il est il est rigolo yem si salaire am mënul am kër mënul am dara ay mbokam lañ koy wax da ngaa dof xanaa kii du sa nawle xanaa gisoo lu muy tabax gisoo lu muy am affaire yooyu noonu avil te pourtant moom moom la yàlla bi si moom si kooku la yàlla bëgg mais il n'est pas dans le système loolu mooy système mooy mafia la le policier bi nga xam ne tey ji moom mi ngi commissariat di légaliser xëy heure wàcce heure moom ngi jël booy bi xam ne amul casque scooter mu laataan jox ma 8000 carte grise que lañ jeex jox ma xaalis nga mooy système tu vois moom bu mu nekk impôt il n'est pas dans def tey ji di di jaay di jaay ay suuf ah wala mu dugg ci dilu 94 bu gaayam boobu noonu may bañ a tudd duram isaan fi après ñu jox ko xaalis comme Tayrou Sarr Israël mu am ay milliards Sonko du fi nekk di am ay problème wala mu nekk assemblée ñu koy ba ma ak yooyu di ko jéppi déedéet saa bu ñëwee dañ koy tàccu comme littoral bi may waaj ñëw nii Israël lu mu qu'est-ce qu'il en a mais mu bàyyi loolu yëpp ne man du dugg ci système bi moo tax gis nga on le taxe de fou de terroriste de l'honneur mooy li ma la wax rek quoi caga ji ñooy xas gars yi toog si euh, ibaadu bi toog si pooju ndeyam di julli daal caga ji ñoo lay xas naan du jigéen bu baax fen la mën a léegi li nii donc c'est ça le Sénégal donc ba léegi gëm xamul leen la may système maa ngi ñëw si système bi parce système bi moom c'est une manière de faire mooy Bougazelli mi nga xam ne tey ji maanaam gars yi génn nañ ko ak état de santé ne nañ baaxul te li ma jaaxal gars yi seen gars yi mën nañ seen kër parce que ñoom seen prison ñoom da koy dégg entre guillemets dañuy am oto dañuy am kii euh, matelas bu nooy clim seen jabar yi di leen seet si ñoom téléphone di oote bokkul ak booy bi nga xam ne tey jii moom de santé ci Saint-Fil il est euh, dans le cercle des Caïmans tu vois ñu jël ko bàyyi na dañ koy bàyyi ba état de santé mënul kii nii te pourtant avant ñuy feebar bi ñuy sàcc ba bu muy transporté phobie yi bañ koy fii la fiile di ko jàpp mu yàgg cee lekk xaalis boobu état de santé baax na mais subitement rek bu ñu duggee prison seen état de santé day basculer ñu lijjanti leen ay kayit ñu bàyyi leen loolu mooy système bi tan que y a des booy xam ne ñu ngi nekk fii seen dossier yi kenn gisuñu ko ba léegi xamoo luy système léegi nga comprendre li Sonko di wax système bi tu vois te foofu ma fay jàllale may continuer di wax comme euh, les policiers ay eh waay jaarama policiers yi mais c'est décourageant des policiers yoo xam ne tey def seen enquête bi ñu defee seen enquête fiile ne nous avons un gros morceau tu vois fiile ko ne nous sommes sur sur une affaire boo c'est c'est c'est c'est grandiose qui buñ ko jappé c'est on va on doit être promu parce que tamit kuy def euh, résultat ci boîte dañ lay promouvoir policier bi tamit bu ñëwee japp pour man ay tonnes de cocaïne wala ay tonnes de faux pieds war nañ ko war nañ ko ki war nañ ko war nañ ko promouvoir tu vois grade am monté mo xamni sax lu muy def ni effort yi def ni ngi feeñ quoi mais avec tant d'investigation tant de d'insomnie nelawatoo baye sa jabar di ko écoute di filer affaire yo noonu nga dem ba japp ben bougazeli 3 mois après ñu bàyyi ko quoi ça c'est décourageant ça c'est décourageant mon frère tu vois police yooyu est-ce que léegi dañu naan jarte nañu kii léegi daal police bi moom bu fekkee ay maanaam yow da am da bokk ci këru maraboutique bu ngand wala nga nekk politicien tu vois wala nga nekk ko xam ne tey ji yooyu daal jarul ngeen koy toppati yéen policiers yi lii daal yéen daal kii sàcc ginaar ngeen topp wala booy bi yor ñaari faux billets 2000 si koñ bi jàppaleen ñooñu parce ñooñu justice bi ngi toog dégg la moo tax léegi ñu ay acharné wu ñuy wax Simone mais coon tamit ku tëggoon ni tamoon ñu tëggoo la ñaari ñu tëggee la ñaari boor ku bindoon ni tamoon ñu tëggoo la ñaari boor yow lañ fi yow bi ay faux bi yéen nga ñëw ne Kleenex la amuñ ci preuve ba léegi ba léegi benn version la muy seen version ba léegi amuñu procès verbal amuñu dara tu léegi yow mooy li ma wax Bougazelli rek ba léegi système bi la coon sec système bi la mooy lan boo jàppee benn centre bu mag les grands griots griots yi VIP yi ñooy jóg def mobilisation dem waaki parara parara bañu ñu bàyyi coon sek ñëw ko mu def ay soirée tu vois def lu ko neex quoi pendant ce temps am na boo xam ne deux boo février ñu japp ko léegi nga ne coon duñ ko wax duñ koy par force parce que tu bénéficies de de de de, de, de cette mafia du système loolu système bi la griot yu VIP yi ñu ngi ci mooy griot VIP yi ku ñu bëggul nga bëri doo bëri ku ñu bëggul nga am doo am ku ñu bëggul nga kii doo kii boo defee benn ja affaire bu nganda dañ lay jàppale nga génn ci mooy li ma waxoon toujours sama koñ booy ñaa mbër bu muy def homicide volontaire volontaire homicide volontaire jos dem 2 euh, RTS génn mu jël benn yetu baseball dóor ko ko Usain Fil dóor ko ko ñu ne dañ koy amandé 3 mois loolu bu doon mbër mu ndaw la dañ koy CNG dañ naan dootul bëreeti ko kii ba pare def ko ambassadeur ba bi la ngi ci ay griot yu mag yi ñu ngi ci VIP yi sëriñ yi ñu ngi fi politiciens yi ñu ngi fi léegi mu ñëwaat ci beneen loolu laay suuxee dem ma politique ma ma pour génn politiciens yooyu jaarama bu leen découragé quoi seulement rek da ngeen di changer objectif bu leen jàppate ay guro kayit parce que bu leen jàppee guro kayit du ma du du kii fen parce que justice boo xamante tey ji maanaam tey ji les les marabouts sont influenceurs ah les les guides religieux sa taalibe day di suñu ay millions yàq sàcc kii bi nga woo Macky Sall bàyyi ko moom daal nangal moom kii nii rek ñu bàyyi ko te personne n'ose le dire soo ko sa kër moom détourné na nattu cent cinquante mille mu détourné ko parce que lépp da ko dépensé sonn kooku mën nañ ko jël tëj ko cinq ans dafa détourné kees mais ki sàcc huit milliards wala ki sàcc ay dara jox si sëñ bi jëndal ko oto dagal ko terrain fa la njëxiraat wala ay yooyu kooku moom bu Macky ne sëñ bi ñaan la indépendante justice boo xam ne tey jii euh, euh, après buñ boo jàppee benn politicien bi mel ne Bougazelli état wax ci sa kaw lay jig nga bàyyi sa ñëw bañ a bàyyi parce boo bàyyiwul boo jàppee nit euh, marabu bi day jóge fa la ñëw tamit o oh, sama taalibe nii ak nii parce daan na ko jox la muy jini nii mooy loolu donc mooy fi may waxee léegi fi may waxaatee mooy ba léegi di ngeen xam système bi di lépp c'est dans le système mes chers gënuma hors sujet mu de ba léegi maa ngi ci système bi fi may xam mooy tamit hier j'ai suivi Barthélémy Diaz vraiment I was so proud I was glad euh, dama dama xool booy bi mu bëgg vraiment Barthélémy euh, ay temps amoon nañu différence euh, kii bi nii mais Barthélémy courage bi moom bu ko Khalifa Sall amoon sax day baax quoi te ma lay wax dara Bart

wax na ko même le Barthélemy bi expliqué le faral même boo xamul dara si àdduna sax yow boo seetaanee da comprendre quoi mais ce qui me fait mal mooy tey ji maanaam bi ni ko gars yi kii yooyu quoi bien fekkee ni ministre des finances bi day dóor jaay suñu littoral mooy loolu Barthélemy exemple mu jëkk a joxe mooy maanaam tey ji nee na un certain Diallo boo xam ne tey ji nee na 5000 la fa am dañ ko jox si littoral bi loo xam ne tey mais loolu da ko am lu tax mu am ko mooy maanaam tey ji le ministre des finances boo xam ne tey ji moom da ci bëgg a gis moom ci dossier bi comme affaire yooyu noonu quoi tu dafa mel ni rek ñu jël Ablaye Wade yóbbu ko Côte d'Ivoire daggal ko ngan dem kër si phase plage plage Abidjan yi ne koy lii yaaka moom affaire yooyu noonu quoi tu may laaj quoi parce que ma loolu bettu ma dóor gi bettu ma quoi Barth nee na ba léegi ci ay révélation d'après Barth nag d'après Barth pour ñu maquiller seen crime yooyu pour système bi la bokk ba léegi dañuy daggaaleel ay sëriñ wala ñu daggaaleel ay borom barke léegi yow boo ñëwee tey ji un inspecteur nga ñëw ne li fi ñu bi ñu tabax baaxul affaire yoon dañu naan booy bàyyil sëriñ diw sax am na ci léegi tu abandonnes les les 14 millions de 990 ministre bi tamit day am na ci laal parce que lan changé na ko titre foncier parce que am na ci moom it 2500 euh, mètres carrés mi mën na ko brader nekk milliardaire ay sëtam ay lépp lépp lépp ay génération am ñu xam ne dese nañ ngor quoi ngor quoi. Barthélemy Dias vraiment grillé nga quoi vraiment yaa ngi kii quoi vraiment boo àndul ak Sonko dina ma neex trop quoi parce que. Khalifa Sall dafa seetlu trop yow waroo ne foofu yow ful ji nga am nii bëgg ak kii bi pank pank ñi nga am nii da war a ñëw ànd ak Sonko ak ñeneen tasaare quoi parce que ñii li may wax gars yi toujours rek c'était loolu ba léegi maa ngi ci système bi gars yi système bi de suñu suuf si ñuy jaay ministre bi régulariser suuf si mais à condition waa ji 5000 mètres mètres carrés yi euh, mu mu jox ministre bi 2500 mu changé ko titre foncier ñu jox ci ay sëriñ jox ci ay deni science yi ngeesoo ñoo xam ne tey jii mooy loolu peut-être seen sëdd ñoo fi ñëw parce que ñooñu léegi ñu kii seen sëdd ñoo fi ñëw après occupé ko isant fil def ak leneen nii pendant ce temps sénégalais yi mool yi ñu ñu juddoo Dakar Plateau yi duñ ci bénéficié wu donc mooy loolu quoi loolu mooy ba léegi loolu système bi tere mu ta nag bàyyil mu gis xamoo système mais di nga xam système

ñoom pour défendre leur intérêt jaral na leen ñàkk rasu amuñu rasu amuñu dara ñoom pour défendre leur intérêt jaral na leen ñàkk jom gis nga ngay gis ni ay maam góor yi ngay gis ni tubaab mi naan euh, maam góor mi ngi naan tey ngi sant ministre bi parce que euh, léegi ñoom eh, jox na waa culture quoi impacté nañ affaire yi doon quoi tu kontaan na ci te ma doon kaas naan gars kaa li ni mais ku ci loog rek mooy loolu ay amuñu rasu quoi amuñu rasu seen intérêt personnel kese la mu ñëwaat ci Macky Sall la nee naa la yow Macky Sall

fa da daw nga deg ay pap Diop ak ay ba deg lan ci ay phobie xam nga ndax amna wala amul de deg lan ci deg parce que tax parce que tam nga train de vie bo xam tamone tàmmoon nga tey yor ay parce que tamit nga xolone rek nga yoroon benn budget nga yor tok ci benn beureum nga yor sa ay budget 8 milliards fond ko ma 8 milliards isax di maye fi yaay rey ne nga jek jek rek amoto benn ndombal tank amoto dara ah la nga satchon te xaliss mom nu mu tol nak te lewul xaliss bu lewul day gaaw dem xaliss boo sat ci xaliss boo sat ci ci population sénégalaise bi na nekay 1 milliard chaque jour ngay genn di def ni bu yagge dara dugul bu yagge day jeex noy mujjé dem maral Macky

xamu leen loolu Baye Fall tu vois moo tax vous avez intérêt à être dans le système di transhumer su Macky Sall boo leen toogee di cogg Macky Sall tu vois di cogg Macky Sall su Macky Sall daanoo tey ji bu Sonko ñewé ñene ne j'ai jamais été contre Sonko tu vois mais différence di la woon té xamone naa ne boy bu yag am li le pour tuwaay ko parce amul len ngor amul len rasou Macky Sall ñi intéressé wo len seen intérêt kessé ñanga bo gesso sa entourage pap job ak may Ndiaye nga fay gis ñu xawé a kii mais ña dess ñep pédès lañ nekkoon parce lan navire bobu bënn na léegi dañuy ñëwaat ci yow ba léegi ma ñëwaat ci système bi moom laay tëjee mooy comme tey jii lu bëri dina am Sénégal gars yi di wax nii ñaan Macky Sall Macky Sall Macky Sall il est victime lui aussi du système la mooy système bi mais mooy système France Afrique bi c'est le système France Afrique il a les yeux maanaam tey jii euh, never bite the hand that feed you isaan fii nit mënoo mënoo nit ku laal bët fa nga leen ngay xool Macky Sall tey jii barki rasulilaay mënul na sax am yenn conviction yenn yërmande yi am na xam da koy def sax contre cœur am na xam da def à contre cœur dafa mel ni rek nga signé ak jinne bi na naa la ah, may alal mais lima bëgg nga may defal nga ne waaw ta laaju ko condition yi mais jinne bi da nga xëy rek mun la rayal sa dom bi sa taw bi wala sa ay lay ray nga ne fa di joy tu passes toute une nuit mais dang koy muju ray parce que alal ji mo la ko jox li tax ñu xam la mo la ko jox c'est ça le Sénégal et la France au fait magi Sall gars yi ñoo fi tek tu vois gaay ñoko fi tek ñoko fi tek léegi moom il n'a pas le choix même bu def dara di te la ko di joy nan ma rem non Mariam li ma dee di ma am nak ah koy def parce que kii si frotte si pic il est assez trempé muntul dara il est même noyé ou ou yi envoyé nañ ko Sénégal bu doon kii day dara Charlie Hebdo yonent bi ñu caricature ko insulte mu bu ñuul dem jàpp premier rang la taxaw laxatuwul sax solul sax kagul bàyyi force day dem parce que mënu ci dara parce que nag kilifa gi moo xew xewle dama lay wax dara rek yow mën ngay nekk fii ni tey jii ah nga nekk fii benn booy waa ji boo nekk xaru tabaski mu jëndal la boo nekk aw ma yëre mu jëndal la damaa sa banque mu orange mën na la wala mu wari la waajoo ji di ngénte nga doo fa dem waaye bu waa ji bu ne day ngénte yaay yëgale yaay baas yaay def baas yi ah yaay yaay dem baas yaay def lépp yaa koy def parce que da nga koy njukkal mooy Macky Sall fu mu delloo njukkal Macron mo si nan dil si géej gi si nan say entreprise dinañ ñëw ma protéger leen na naari jàll fële Ablaye doon fi ne du leen fiy jëlee ci nan base militaire bi nañ taxaw nii parce que ëllëg a may yéen a may jàllale tu vois ak leneen si nan yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu ba léegi système bi la système boobu kenn la fi jóge c'est le système dont parlait Sonko te tant que mi ngi fii du ñu dem tant que ñun ñu ngi toog suñu xaalis suñu xaalis France di ko di ko di ko sponsoriser France nekk suñu parrain du ñu dem système yooyu la Sonko di wax y a tellement de système yoo xam ne tey ji maanaam mais Sonko bu toogal tey système bu nekk bu mu si jël ak benn mandat am la système bu mu si jël benn mandat am la ma ñëwaat ci beneen système mooy ban troisième mandat bi ñuy wax ni troisième mandat bi ñuy wax ni nii il faut s'attendre à tout il faut s'attendre à tout tey jii bu ñu toogee ba Macky Sall xam nga gars yi fu ñu nar a jëm ak ñun si troisième mandat bi di ngeen ma dégloo xel nag moo laay tëjee nag quoi tu vois xam nga fi ñuy jëm ak ñun dañuy toog naan Macky Sall troisième mandat Macky Sall na non j'avais dit deux mandats successifs de cinq ans nul ne peut faire deux mandats successifs de cinq euh, un mandat de sept et de cinq il me reste un ans gars nag monsieur le président foo ko teg mu ne fi ma ko teg mooy bay jaay gaz booy jaay gaz ngay jaay gaz ba si yàgg ak prix prix nga jékki-jékki ñu ne gaz bi wàññi nañ ko 3000 euh, wàññi nañ ko 2500 euh, da ngay écouler sa stock ba pare gaz yi nga jaay yi nga jëndoon noonu da nga koy jaay 3000 ba pare nga soo ko jaayee 2500 parce que bii décret bi dugg gaz yi la jëndoon nga ko bokk ci fa lay jëm ak ñun bokku ci fa lay jëm ay loi yooyu noonu je de mooy lay ñëw teg ne troisième mandat ñëw si gox boo dem système bi parce que ñoom gox boo dem am na benn jaam bu fa ne boo a ñëw suñu sœurs yi dem suñu maire yi dem ma tusi comme meeting ba damay moo doon happen bi fi Abdoulaye Wade nekkee same shit moo doon happen bi fi Abdou Diouf fi Senghor nekkee nag óoruma mais xam naa ne Senghor invité wu na mara yi ba am fa mu fay bëgg parce que ils sont intelligents te am nañ saf xam nañ fu nekk ni ñu lay jaaree tu vois lii la système bi wax c'est ça le système te lii tant que juguñ si duñu dem fen duñu mës a dem fen parce que ñun dañu bëgg ñun defe ne yàlla day wàcc defaral ñu affaire yooyu quoi yàlla du wàcce kenn di kii yow même la yonante bi dafa xeex yonante bi bu muy xeex mënoon na bëgg lu yomb ne yàlla yóbbul yóbbul jibril wala yóbbul malaaka yi mais pour donner l'exemple xam jeexaat mun jëg di xare ba dara di xeexal diine seule la lutte libère Sénégal du ay macarte moo ñu fiy jëlee fichier boo xam ne du mës a fiable ba ba ñuy dee fichier bi du mës a fiable ministère de l'intérieur am na kuy xeex di àtte sa bopp yaay xeex yaay àtte sa bopp loolu fu mu am nga ne ko da nga koy gañ <laughs> waaye saa yi dama la dama la Modou Lo Balla sax bu ñuy bëree barke Rasulullah Modou Lo Balla Gaye bu ñuy bëree bu ko Aziz Ndiaye tëggee wala ba Gaston tëggee xelu Modou xajam na ñi farak Modou Lo seen xel xajam na bu doon ay face à bëgg a parce que lan mais Aziz Ndiaye Gaston gaayanu Modou Lo la gaayanu Balla mais same shit moo am ci politique bi Aly Ngouille Ndiaye dina atte ba pare di atte en défaveur de Macky Sall te Macky Sall jox ko teranga yu mu am yëpp jox ko dilu pétrole yi nga yëpp nii loolu yëpp système bi la ba léegi xamoo loolu système bi xam nga système bi sax mais da nga da si da nga si bëggul jóg mais révolution rek mooy ci gars yi révolution rek printemps arabe yooyu rek yooyu rek ñu reculer mais pas ay civisme ay voté nii nii nii nii nii ñu sàccaat élection ñu ne moom kay moom nguur euh, euh, lu sàpp yàlla jeex nguur gu yàlla jeex yàlla mën na seetaan de yàlla il est patient yàlla suñuy 400 ans ak suñuy 1000 ans mooy benn jour si moom de yàkkamtiwul dara ba parce que kontaanul si yéen nag parce doolu na ay jullit exemple bu ñu ay jullit a a sot waaye day seetaan de waaw waaw footballu muuma la kenn dox sa morom mu la sama gars yi j' ai naa fu ne de différentes position fu ne système bi ngi fépp parce que ñu dret sa biir kër sa day am système système bi ngi fépp yàlla nañu yàlla dimbali rek mel parce que système bi pour nga dindi ko fi non <laughs> foog yàlla jàppale système bi y a la ñu dee mais système bi du dañ parce que il se trouve dans le système tu vois au détriment des autres doo leen ko la sama kanam gu ñaaw gi ji génn malation la woon seen slave seen kii lu ma fex lu ñaaw da ngeen xam ne jaam kese laa quoi yàlla sàmm Sonko yàlla yàlla sàmm Bart balaa ñu koy reenaan corona moo koy rey parce que si yooyu ne Pape Alé Niang yàlla ay Barthélemy Diaz mënoon toog dund seen dund seen euh, film sàcc xaalis Mermoz wala dara mais corona bi mi ngi participer mi ngi ñëw di wax di kii nii tam na citoyen américain mënoon dem Amérique toog Sonko mënoon a dem tey si suuf yi mu toog def yooyu noonu ka bu ñu gën a gore ah bu ñu demee ba tamit yow mi xam ne yaa ngi jaay madda wala café Touba bu la si kenn jiit xeexal quoi tu vois Sénégal tu vois bu neexee kenn du gën a neex ne bu naxaralee a